أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala ci kàttanu borom bi tey ñuy jël saar bu bees ñuy jël saar bi di suratul maida lan moo tax ñu tuddee ko almaida mu ne sababu tasmiyatu suratul maida li waradi zikrul maida fiha li tax ñu tuddee ko baat bi di maida soo demee ci biir saar bi dañ fay fekk baat boobu di maida di tekki table wala muy tekki ndab baat boobu nekk ci biir saar bi di tekki table wala ñenn ñi di ko tuddee ndab looloo tax ñu tuddee ko saar bi xaysu talaba alxawaariyun min isa alayhi salaam aaya tadullu ala sidqi nubuwatihi dafa am benn groupe mbooloo buñ doon tuddee alxawaariyun te ngeen dégg yàlla di leen wax ci alquran qaala alxawaariyun nahnu ansaarullah ñenn ñi ne ay nappkat lañ woon ñenn ñi ne ay cuubkat lañ woon ñooñu ñoo dajaloo woon benn bis ci seydina isa alayhi salaam daan ne ko nun dey danoo bëgg xam ne yow dëgg-dëgg yonent nga yàllaa la yónni loolu nag li ñu koy won mooy benn kéemtaan boo ñaan mu wàcc mu wóor ñu ne yow yaa ñaan mu wàcc ñu gëm ne yow dëgg dëgg dëgg dëgg sag yonentu dëggu na waaye bis bu loolu amee sax du ñu yem rekk ci dëggal la ci yonent gi nga nekk waaye wa takunu lana iidan danañ jàpp jour boobu note ko def ko jouru feet saa yu ñëwee ci année bi ñu feete ko ak yeneen yi ci nekk ci ay xissa yu yéeme ak ay kéemtaan yu bari ak lewetug borom bi taba màggaayug borom bi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu al aliyi al kabir looloo tax ñu tuddee saar bi suuratul maida mbokki jullit yi suratul maida madaniya madina la wàcc alquranul karim 114 saar la 72 ñoo wàcc Makk 22 moo wàcc Médine maida ci wàcc Médine la bokk saar bi ci saar yu gudd yi la moom saar bi ayem yi 120 la waaye toa isruna wa mia 120 aaya la ay téeméeri saar ak ñaar fukk soo tàmbalee ci kaamil bi jóge ci kaw di wàcc saar bi raam lan la saar bi raam lan la am na ñu ne ñett am na ñu ne quatre am na ñu ne cinq léegi nag kan mooy àtte ah xaaral ma laaj xaafis yi xaaral eh eh eh noppi leen bàyyi leen ma laaj xaafis si Mohamed saar bi raamam lan la ñeenteel première mooy fatiha deuxième mooy baqara troisième mooy al imran bu ci tegu quatrième ah kon li raam bi lan la gars yi da ngeen di fàtte fatiha mooy première saar xanaa ñu bëri dañ naan boo leen ne ñu ne alquran baqara la ba naas yi léegi fatiha ko mbokk ah bu ngeen génnee baqa fatiha musibaab li ñu bëri boo leen ne alquran ñu ne gis nga billahi alquran baqara la ba naas laa la wax waaw léegi nag ana fatiha fatiha muy premier saar bi du dëgg kon saar bi ram mooy ñaata cinquième ci kaamil bi bu ngeen ko toppee mbokk yi bayna yaday suura saar bi dafa ñëw di wax ci mbir yi ginnaaw ba ngeen xamee ne Medina la wàcc mu indi ci sharia nag lu bari ndax alquran ni ma leen waxee sànq 92 yi wàcc makka lan lay jàngale li ëpp tawxid kennal yàlla amma yi wàcc Medine ñoom ñooy jàngale luwaay sharia baqara nisa anfal saar yi li ëpp ci ñoom di nga fekk aqida dinañ ko jàngale waaye ak ay atte yoo xam ne ci sharia la ëmb waaye saar bi nettali na histoire ahlul kitab am na benn borom xam-xam bu tudd abu maysara nee na almaida min axiri ma nazala min alquran nee na saar bi di maida dafa bokk ci saar yi nga xam ne dañoo mujjee wàcc ci alquran mu ne laysa fiha mansuux amul lenn lu ñu mansuuxal ci saar bi mu ne wa fiha samaanun ishruna farida di nga fekk ci saar bi ñaar fukk ak juróom ñetti farata yu yàlla sant jaam yàlla yi kon saar bi ci ponkali saar yi la bokk moom suratul maida mu ne saar bi nazalat hadihi sura mutasarrif rasul sallallahu alayhi wa sallam min al hudaybiya saar bi dafa wàcc di delloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam place barab bu ñuy wax hudaybiya nee na saar bi ëmb na ay atte sharia ndax jamono yooyu lu tax société islamique bi mooy mouvement islamique bi mu ngi doog a commencé yàlla di leen yar di leen tàggat ñu leen di xamal aaye yi moo tax dëgg-dëgg bépp société islam bu ne du dund islam rek ci jafe-jafe la ñuy nekk xam ngeen misaal bi su ma leen doon jox misaal lan la jullit bu bëgg a dund sans l'islam xam ngeen nu mu mel ndax xam ngeen ko mu ngi mel ne jën bu bëgg a dund ci suuf ne du dund ci ndox jën bi lànk ne du ma dund ci ndox mi nu muy mel day dem alaaxira mooy liñ dal tey danoo bëgg a dund diine ci kaw suuf ne lislaam du ci bokk nu muy nekkee ba pare ñun ñu ne ñun ay jullit lañ de moo tax duñ jóg ci problème dund jóg ci jafe-jafe ilaa yawmi diin foog ñu defar suñu bopp defar suñu société yi defar nit ñi tey bu fekkoon ne defar nañ nit ñi ñii di indi ay référendum kenn du leen faale ndax dañuy xam ne duñu tus ndax référendum ay xalaati nit la nit moo toog cay néegam xool lii moom mooy baaxal sama mbir mu ne xaar leen ma indi ko gars yi dafa boo jàppale ma ci amma lii nag yàlla wax jalla jalaaluhu moom mooy defar sunu dund nun ci àddina bi ñun ñëpp lii moo koy defar waxul ne Sénégal rek lay defar waxul Afrique du Asie du Europe du Amérique waaye àdduna bi yëpp lay defar ku ñuul ku weex ku xonq ku weex ku ñu ku jaune nee na jamono yi fekk na mouvement islamique bi mbooloo islamique bi société bi di commencé yàlla di leen yar attey di wàcc pour lan jamono yooyu ñoom dañoo soxla woon al manhaj ar rabbani allazi yaasimuha min azalali dañoo soxla woon mbir moo xam ne yoon woo xam ne loi woo xam ne doxalin woo xam ne ci yàlla la bàyyeekoo loo xam ne day tax nit xam boroomam jullit bu xamee boromam rek mucc noppalu waaye bu nu xamul yàlla suñ dund du mun a neex xam yàlla mooy tax sunu dund baax fii ci kaw suuf ndax suñu xamee yàlla rek dundin wi day day jaar yoon xool leen tey mbokk yi société bi am nañ ay policiers d'accord ngeen am nañ ay gendarme ah am nañ ay douaniers am nañ ah wax leen wax leen li ñu am ci sécurité façon bu nekk am nañ ko am nañ sax ay vigiles yoo xamante ne bokkuñu ci armée bi waaye ñuy garder lañ ndax dëkk bi am na sécurité ndax normal na ndax policiers yi li ñu leen doon doye ci dëkk bi noot am nañ ko ndax douane yi li ñu leen doon doye am nañ ko ndax kaso yi ñu tabax ah ndax kaso yi def nañ seen liggéey parce que nit ñi baaxuñ lu tax nit ñi baaxuñ mooy nit ñi liñ leen yare liñ leen tabaxe bokkul ak li yàlla wax moo leen di baaxal ciment bi bi ko waa ji defaree ba pare def ci lépp ne ciment bii moo fi gën a baax day fekk nga jël ciment bi def ci ci ndox wala ah boo jaxasee ciment bi ak suuf ak xeer nga def ci ndox soo tooyalee après boo dóoree boo bàyyee noonu nga dem boo bàyyee juróomi fan nga ñëwaat looy fekk mu waaw léegi boo ci deful ndox nag nga ni xaar ma xool leneen xaar ma dëbb daakaande daakaande yaakaar naa moo gën a baax ciment parce que daakaande bu woowee danaan kom nga ne danga koy tabaxee ndax mbokk yi dina dem lu tax du dem parce que du loolu moom mooy tabax kon lu nekk suñu buggee mu jaar yoon dañ koy delloo ci sunu boroom subhanahu wa taala dafa fekkoon jamono yooyu gaa yi soxla doxalin woo xam ne dundin woo xam ne moo leen di musal ci ay jàdd jàdd wa yarsumu lahum tariqa al binaa wal istiqraar yoon woowu moo leen di rëddal dal yoon woowu moo leen di indil dal waaye moo leen di indil jàmm loolu la gaa yi soxla woon moo tax yàlla di wàcce sharia bi ndànk ndànk ndànk ndànk ba sharia bi daal di mat moom suratul maida am na ay mbir yoo xam daf ko ëmb danañ ko tënk ci yi di ñëw saar bi jàngale na ahkaamul uquud njëlbeenu saar bi sax da ngay dégg baat bi ma nga fa al uquud lan mooy uquud mooy contrat yi saar bi dafa ñëw di feddali pour ñu respecter contrat waaye saar bi dafa ñëw di ñu wax azabaih rendi yi ban rendi moo dagan ban rendi moo araam saar bi dafa ñëw di ñu jàngal asayd napp nan la ñuy nappee ak lan lan war a napp ah saar bi dafa ñëw di jàngal al ihram nan la ñuy armale saar bi ñëw dafa dafa jàngal nikaahul kitaabiyaat est ce que ñun am nañ droit takk jigéen ñooñu nga xam ne ci ahlu kitaab lañ bokk wala amuñu ci droit mbokk yi saar bi dafa ñëw di ñu jàngal ar ridda murtad ku génn ci lislaam lan mooy sa atti saar bi daf ñëw di jàngal ahkaamu tahaara naka la ñuy def ba laab saar bi daa ñëw di ñu jàngal xaddu saraq ku sàcc nuñ lay def lan mooy sa atti saar bi dafa jàngal di jàngal xaddul baxi agresseur lan mooy atteem wal ifsaadu fil ard saar bi daf ñëw di jàngal ñi bëgg a yàq kaw suuf lan mooy seen atti saar bi daa ñëw di jàngal ahkaamul xamru wal maysir lan mooy atte sàngara ak carte saar bi dafa ñëw di jàngal kafaaratul yamin ku ngiñ billahi wallahi ku ne barke sëriñ wi sama geñoog baay sama weenu naam nga sama nangam yooyu noonu loo soo ci soo ci giñee lan mooy sa atte saar bi dafa ñëw di jàngal kuy ihram armal ba pare di añ màkka daa di rey ab rabu àll daa di rey ab rab lan mooy sa àtte saar bi dafa ñëw di njàngal al wasiyatu indal mawt bu nit di dee lan la war a dénkaane mbokk yi waa léegi lii nii yëpp saar bi jàngale nekk ay àtte ñun ñu ngi koy dund wala dunduñu ko ci sunu dund la bokk wala bokk ci ñu ngi koy dund ci sunu dund la bokk dañ ko war a def waa léegi bu nu xamul saar bi jàngunu ko dundunu ko àtte woowunu ko ndax dinañ def àtte yi ci yàlla wax moo tax perte na ñu jàpp alxuraan def ko téere barkeelu rek ak téere ku dee àtte yi ñu wax yépp ñu bàyyi ba nit ki dee ñu sang ko ba pare suuli ko wala suulaguñ ko daay jël kaamil yi di ko jàng bismillahi rrahmani rrahim ya ayuha alladina amanu awfu bil uqud waa ji daa dee nga naan ko yàlla nee na nga respecté contrat bi fekk daa dee kii dee ñu koy waaj a suuli ban contrat lay respecté ban dig ah du ko def parce que dee na kon nanu xam ne téere bi yàlla wàcceel nu téere bi dañ ko war a dund jaaduwul Sénégal ñu nekk 95 pour cent musulman ñu ñuy yóbbu ci ay yu kenn xamul ay caaxaan yoo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan daanaka kufru la weddi yàlla tabaraka wa taala la jaaduwut ay nit di ci dund kon saar bi ay àtte la indi wax naa leen ko contrat rendi ah ku napp kuy rëbb wala ngay napp ah ndax ahlul kitaab jigéen ña lan la yàlla wax suñu digganteeg ñoom ku murtat nekk ci lislaam bam neex la nga ni génn naa ci laab nu ñuy laabee ndax jaamu yàlla mënta am lu dul laab am sàcc lan la yàlla wax ci moom lan mooy atteem njaaloo lan la ci yàlla wax agresseur lan la ci yàlla wax ku yàq suuf si lan la ci yàlla wax sàngara carte lan la ci yàlla wax ku giñ lan la yàlla wax ci yow ah kuy waaj a dee lan la yàlla wax ci sa ndénkaane alhukmu ala man taraka al amal bi shariatillahi aaye dañoo wàcc yàlla di wax lan mooy àtte ki bàyyi sharia bi dem àtte woo yeneen luwaa yu doomu aadama tëral ne moom ah kon saar bi dinañu jàngal sunu mbir mi ñu nekk de mu ne ila axiri ma hunalika min al ahkam at tashria am na yeneen àtte yu nekk ci saar bi saar bi duñ ko jàngal du yi rek waaye am na yeneen waaye def la koo tënkal mbokk yi ginnaaw loolu saar bi nettali na ay qissa qasata ala alayna fi hadihi sura baadu qisas yàlla nettali nañu ci biir saar bii di maida ay histoire ay nettali boroom xam-xam yi nag dañuy wax nettali bu ñu leen nettali bu mu mun a doon dafa am lu tax ñu nettali ko bi ci njëkk mooy lil iza wal ibar suñ la nettali benn nettali mooy da nga cee war a waaru waaye da nga ci war a xelu xelu ñaar yi duñ benn de xelu ak waaru du benn suñu yàlla nettalee benn qissa ci alquran liñ ci war a njëkk a def mooy ñu waaru ci xissa bi buñ ci waaroo ba pare xam nga luñ ciy jëlee ñu xelu ci gis nga ñàkk a utiliser sa xel daf lay alak àdduna alaxira daf lay yóbbu safara waa safara bi ñu duggee safara bokk na ci liñ doon wax law kunna naaqil ma kunna law kunna nasma aw naaqil ma kunna kasabi saay ñun buñ doon dégg ci buñ doon xel ci sunu xalaat yi ñuy xalaat kon tey duñ dugg safara kon ku yàlla may nopp yàlla may la xel may lay nopp nopp yi doo ci dégg dégg mooy tax nga xalaat soo déggee benn mbir dégg-dégg bi fan la la yóbbu nga xalaat ñaari gumba dañoo ànd di yalwaan chaque jour bu ñu yalwaanee ba pare rek dañuy romb kër tubaab bi rek tooñ rek tubaab bi root pisinam ba pare dem tëj buntu këram ñoom ñu ñëw dugg ubbi ubbi buntu kër gi dugg sa waay sangu ci piscine bi ba mu neex leen dem am ñu ne tubaab bi am na ñaari gumba yu ñëw fi bis bu nekk di yàq sa ndox mi tubaab bi ne abo ñu ne waaw tubaab bi daal di ñëw sangu ba pare def fa wikeenam di ñibbi rek daal di vidd ndox mi ubbi ubbi ubbi ubbi piscine bi rek piscine bi yëpp daal di tuuru mu mu bàyyi ko noonu amul ndox gumba yi sa waay tërërër yi jóge fa la ñëw simmiiku rek keneen ki tëb ni buñ ne rut ci ci ci ci ci kar affaire karo yi ne rut daanu bu métti waaye daan ne ni keneen ki ñëwal keneen ki ne ko dégguma pucung-cung de mu ne lan ne dégguma pucung-cung maanaam xam nga booy dugg ci ndox ndox mi dafay def benn son benn paccax bi mu ne beneen gumba bi ñëwal gumba bi ne ko dégguma paccax de vip laa dégg ne ko am nga sens mbokk yi gumba googu lu ko musal dafa xelu dafa xalaat ah man li ma daan dégg démb dégguma ko tey donte ne ko la du gis de mi xelam xalaat na aha doomu adama noonu la war def jullit rawatina jullit jullit dafay xalaat yàlla nee na ñii dul xalaat safara lañ jëm ndax waa safara la leen fa dugal mooy ñàkk xalaat la ñu njëkk mooy ñun bu ñu doon dégg di xalaat kon tey du ñu bokk ci waa safara yàlla wax na ne ci suratu araf safara dama ko préparel ay nit ñoo xam ne dama leen may xel xalaatuñ lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun yàlla ma dafa leen ay bët du ñu gis wa lahum aazaanun yàlla ma may leen nopp duñ dégg ulaika kal an'am yàlla mu ne ñii ñu ngi mel ne ay rab xam ngeen rab ay bàyyi ma benn borom xam mu ne bàyyi may bi ñu déggee yàlla xas leen bàyyi may dañoo def délégation ñëw ci yàlla ñu ko yàlla yow de yaay borom asmaan ak suuf yaa moom lépp ñu ne waaw ñu ne waaw lu tax nga may doomu aadama xel ba pare ñun mayoo ñu xel tuuti nga ñu may tuuti ngay xas doomu aadama di ko nuru leen ñun gars yi nee nañ yàlla daal ci yokk balhum adal ne doomu aadama yi sax ñoo gën a yées rabu àll yi ndeysaan am naa sama benn grand muy góor a mu ne kañ nga gëj a gis kakatar yii ma ne ko kakatar kay amatul mu ne xam nga sax kakatar amatul ma ne waaw mu ne ma nit ñi ñoo jël melokaanam moo tax kakatar amatu mu ne kuy ni kakatar naa ko jox 10 000 waaye yàlla mu ne ulaika kan alam balhum adal doomu aadama yi ñoo gën a yées rabu àll yi egg nañ foofu tey kan moo daan fekk du kuy moo daan fekk kuy mu taxaw mu koy mu koy tëbu gars yi d'accord ngeen kuy moo daan fekk kuy të kuy taxaw mu koy tëbu ci kuy rek la ci mboolem rabu àll yi bu góor bi ñeme naa fekk bu góor bi mu tëbu ko wala bu jigéen bi ñeme naa fekk bu jigéen bi mu tëbu ko lu tax parce que xamul parce que rab la tey egg nañ ci doomu aadama def ko wala egg nañ ci wala waaye xam ngeen ne rab bi rabu àll yi kuy bi fekk kuy bi taxaw mu koy tëbu ñoom demuñu mariage de wootewuñu mariage de kuy bi jëndul bàgg de daan ne damay takk sama moroomu góor bii moom yëfu rab la def léegi nag doomu aadama moom da koo organiser ñu dem bañ naan droit la xoolal doomu aadama rek ni yàlla bindi adduna bi la doomu aadama bëgg a changer ngeen defe ne bu fekkoon ne góor ak góor rek ñoo nekk ci kaw suuf ndax nit dina am yàlla defaroon ñaari aadama ah mu wàcce leen mu ne leen bismillah ndax nit dina fi nekk la war a yàlla defal aadama defar xawaa pour doomu aadama des ci kaw suuf la moo tax yàlla digal góor ak jigéen nan sëy wax na ko wa bis wa bassa minhuma rijaalan kasi rijaalan jeex na la moo tax yàlla def ko léegi nag bu fekkoon ne adduna bi ay jigéen kese ñoo fi nekk gaay lan ngeen xam ci dëkk adduna bi kon su fekkoon ne ay góor kese ñoo fi nekk ndax adduna bi dina neex nit dafa am loo xam ne sunanullah la yàlla moo ko tëralin doxalinam la su ko nit ñi bëggee dindi dañuy yàq àdduna bi yàlla moo wax góor ak jigéen nanu sëy même sëy boobu sax yàlla daf koo organiser mooy li ñuy jàng ci àtte yi mu la mu lay wax léegi léegi àtte yi am kon mbokk yi borom bi subhanahu wa taala saa yu ñu nettalee ay qissa liñ ci war a jële mooy waar ak xelu ci fa zakara qissatu bani israila maa Musa yàlla nettali nañu ci saar bi muy maida histoire yonent yàlla Musa ak banu israil di ngeen fekk ci saar bi banu israil nu ñu wooye bopp nu ñu nu ñu dëgëree nu ñu saay-saaye nu ñu bone ngeen fekk ci saar bi Musa mi yàlla yónni woon ci ñoom ni mu sonne Musa ci yonent yi gën a sonn ci àdduna la bokk bal sax alquranul karim li mu tudd Muusa moo ëpp li mu tudd yeneen yonent yi lu tax lu ko waral mooy bandi yu ko yàlla boole loon kon yàlla bu ñu wax bu ñu nettalee loolu ñun luñ ci war a jële yonent bu yàlla yónni ci ay nit nit ña lànk saay-saay ba yàlla nettali seen histoire pour ñun ñu nettali ñu ko mooy lan pour ñu bañ a ñu góorgóorlu ñu bañ a mel ni ñooñu waaye di ngeen fekk ci saar bi yàlla nettali ñoom seen féttirlu ak seenug mbew ak seenug dëgër bopp ñoom yahud loolu buñ ko jàngee li mbokk bi doon wax keroog ndax yahud yi ñu gis tey ñoom la yàlla di wax ci alxuraan waaw ñoom la gisaloon niñ mel ci àddina bi gisuleen ni ñu dëgëre bopp gisuleen ni ñu kàccoore gisuleen ni ñu bëggee mbon gisuleen ni ñu tasee ak mbon ci àdduna mbooleem secte yi yàq àdduna bi yahud yi ñoo ko sos ñoo fi indi góor jigéen ñoo fi indi franc-maçonnerie ñoo fi indi sionisme ñoo fi indi yi ngeen di gis parti yi ay capitaliste rek ay libéralisme ak ay tout démocratie ak laïcité ak lépp yahud yee ko fi indi ngir yàq àdduna bi ngir fexe jaam yàlla yi jàdd bu kenn def li la yàlla subhanahu wa taala sant mbokk yi yàlla wax na sax ci biir saar bi ci suratul maida pour wan leen ne yahud yi ni ñu bone yàlla nettali seen histoire ak Muusa yàlla ne keroog ba Muusa ne leen kaay leen ñu xeexi lan lañ ko wax fazhab anta wa rabbuka faqaatila inna hahuna qaidun Moussa xëy na suba rek jël ay armam ne banu Israël aca kaay nañ dem xeexi yàlla neen nañ xeexi xam nga lu ñu ko wax sa waay mun naa ñu ne ko àndal ak sa borom ngeen xeexi ñun fii mënuñu fee buuse àndal ak yàlla ngeen dem xeexi sa borom ñun xeexuñ de mu wëg wa ma xasala lahum min at-tasharrudi wa diya yàlla nettali nañu ci saar bi li xew ci banu israil ci kàccoore ak caay-caay ak cànkute ba yàlla réeral leen ci benn suuf bu tudd tiix ñu réer 40 ans ñuy wër dëkk bi saa yu ñu ko jibee yàlla tourné leen ñuy wër ba mu nekk 40 ans mënuñoo dugg dëkk ba ndax mbon gu ñu bon ginnaaw yàlla nettali ñu histoire boobu yàlla nettali ñu tamit saar bi beneen histoire mooy histoire doomi aadama yi histoire bu yéeme bu ëmb ngëm waaye feeñal caay-caay feeñ ak mbon mooy histoire Qaabil ak Haabil waxtu wa nga xamante ne kenn ci ñoom rey na moroomam ñoom ñaar lan lañ bokk ndey ak baay waaye ngir àdduna ngir poñetu àdduna ngir jigéen ngir intérêt kenn ci ñoom daal di jàpp moroomam daal di koy rey loolu tamit yàlla subhanahu wa taala nettali nañ ko fii pour ñu moytandiku mbokk yi pour ñu jële ci comme li ñu waxoon sànq ak waar waa ak ak xelu yàlla nettal nañu histoire ñaari doomu ndey yooyu muy Haabil ak Qaabil mu nekk première criminalité crime bu am ci kaw suuf mooy deret ju ñu tuur yàlla nettali nañu modèle ci ay nit yoo xamante ne nit koo xamante ne dafa bew dafa kàccoore dafa saay-saay ba daal di tuur deret daal di rey mbokkam tuur deretam yéen yàlla nettali nañu ba tey ci saar bi histoire Maïda mooy li ñu tuddee saar bi ña dajale woon ci yonent yàlla Isa daal di koy ñaan lu yàlla ne ko bu fekkee ab yonent nga buy wane ne dëgg dëgg yonent nga ñaanal benn taabal wala benn ndab lu rëy jóge kaw asamaan wàcc lekk nekk ci ñu lekk ba suur bu ñu lekkee ba suur nag ba raxasu naan ndox ñu gëm ne yow mi yàlla la yónni doomu aadama yàgg naa bon de waaw di ndeysaan daal di dajaloo ci Isa mu nekk kéemtaanu Isa alayhi salaam ci jamono boobu nga xam ne xawaari yu ni ñoo ko ko laajoon kon saar bi nettali nañu loolu saar bi nettali nañu pas-pasu yahud yi yàlla ne pour ngeen xam mbonu yahud askane nañu yàlla doom lu yayul ci yàlla nasabu ila allahi ma la yaliq askale nañu yàlla loo xam ne jekkul ci yàlla yo yellul ci moom subhanahu wa taala ci doom bu jigéen ñu ne yàlla moo jur malaaka yi yàlla nettali nañu contrat yi ñu doon fecc yàlla nettali nañu pas-pas yam leen waxoon ne ñu fas ko ñu lànk yàlla nettali nañu ci saar bi ba ñuy changer tawraat ak injiil yor lu leen neex ci seeni bikk seeni xalima ak seeni feutre bu ñu yeggee ci waxu yàlla ñu ne non bii dafa metti nan seet nu mu gën a yombee ñu daal di dindi def fa lu leen neex yàlla nettali nañu loolu niñ doon soppee tawraat ak injiil yàlla nettali nañu ni ñu weddee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne moom mooy yonent bu mujj yàlla wax ñu ne ñoom gëmuñu yonent bi te moom lañ gën a bañ yàlla nettali nañu seenug nuur ci réer ak caaxaan yi ñu gëm yàlla tëjee na saar bu tedd bi mbokk yi ay tëkku yàlla wax ñu yowmal xiyaam bis bu rëy ba yàlla ne dina woo Isa ci kanamu jaam ñi ñoom ñépp ñu taxaw yàlla mu ne ko seedeel yàlla laaj ko ci kanamu nit ñi a anta qulta linnaas ittaxizuni wa ummi ilaahayni min dunillah ndax yow isa yaa waxoon nit ñi nañ la jàpp yaag sa yaay ñu def leen yàlla ñu bàyyi yàlla ndeysaan waaw mbokk yi bu dee yàlla subhanahu wa taala isa la woo isa am na martaba wala amul martaba ah isa am na martaba wala amul martaba isa am na daraja wala amul daraja isa màgg na ci yàlla wala màggul isa ci ulul azmi min ar-rusul la bokk moom mooy ñaata ah isa mooy ñaata ci ulul azmi min ar-rusul mooy ñaatal yonent ah waaw yéen déedéet ulul azmi min ar-rusul ñaata lañ juróom lañ isa mooy ñaateel yonent mooy ñeenteel hey ragal leen yàlla gars yi ragal leen yàlla ulul azmi kan ak kan la nuux ah ku ci tegu ibrahim ku ci tegu musa isa ku ci tegu muhammad waa xoolal kii ulul azmi la bokk ba pare mooy almasih moo daan fekk ku dee mu ne ko xum bi iznillah mu jóg taxaw mu fekk ku am boos mu noddanti ko boos bi dem mu fekk ku gumba mu raay bët bi mu gis yàlla laaj ko question bu rëy bii ndax kéemtaan yi mu doon def nii mus naa fekk ay xale yuy fo comme moom da doon jommal xale yi xale yi bu ñu demee nettali seen yaay yi ne ñun dey xale bii ñuy fowal ak a garaaw ñun ñëpp buñ añee ba pare buñ ñëwee daf ñuy wax lu ñu añee te bu ñuy añi daf ñuy wax lu ñuy añee buñ ñëwaatee mu wax ñu ne loolu lañu añee te dëgg la maire yi ak paa yi commencé téye seen doom yi ku xëy bëgg a faw ji rek ñu ne la déedéet tey demoo benn bis ñu daal di dajale xale yi dëkk bi yëpp tëj leen ci benn néeg pour tey du ñu faw ak Isa Isa toog ba heure bi xale yi doon faw ak moom daal di jot gisul kenn mu dugg dëkk bi bi mu ñëwee ba ci néeg bi mu fëgg bunt bi mu ne ku nekk fii paa yi ne ko ay mbaam xuux fa nekk de mu ne yàlla def na ko ñëw bi fekk ñëpp nekk ay mbaam xuux ñëpp nekk ay mbaam xuux danaan fekk ban bu tooy mu jël ko ne ko nii dank ko ba mu dank mu defal ko bopp defal ko bekk defal ko tànk daal di koy sànni ne ko naawal ci kàttanu yàlla mu naaw xoolal yàlla li mu ko wax fii tey yàlla laaj ko ab laaj ne ko a anta ndax yow mii yow isa qulta yaa wax li naas nit ñi ittaxisuuni wa ummi ilaahayni yow yaa wax nit ñi nañ la jàpp yaag sa yaay ngeen nekk yàlla bañ naan au nom du père de fils waaw yow yaa wax loolu yow isa yaa ko waxoon yow yaa ne woon yow yàlla nga sa yaay yàlla la nañ ma bàyyi man yàlla ndeysaan nga dégg mu ne xoolal li mu njëkk a wax bu doon man la fi dama moo doon kenn la ci ñun wax déedéet man waxuma ko de daana laa maa qultuhu déedéet waxuma ko rek waaye xoolal baat bi mu indi qaala subhanak allahu akbar maa yakunu li an aqula maa laysa lii bi xaq li mu njëkk a wax mooy sellal yàlla ne yàlla tudd naa sak sell subhanak allahu akbar parce que xam na kan mooy yàlla bi mu sellalee yàlla pare lan la ci teg mu ne maa yakunu lii an aqula ma laysa lii bi xaq man awma droit warul ci man may wax loo xam ne awma ci benn dëgg yow yàlla sax su ma ko waxee xam nga ko su ma ko waxulee xam nga ko man ba ma fa nekkee lan ma waxoon laa leen wax ba ma fa jógee nag yow yàlla yaa fa desoon allahu akbar gis ngeen wax ji dégg leen ko de man yàlla awma droit wax lu dul dëgg ba ma fa nekkee la nga ma wax loo woon laa wax yàlla ba nga ma fa jëlee yaa fa desoon yaa fa nekkoon nag ak ñoom nag waaw léegi su fi yàlla poñee Isa di ko laaj lii kon sëriñ bi nag kon lii li ñu waxoon sànq aaye bu ñu ko wàccee pour lan lil isa wala ibar léegi bu yàlla waxee lii isa isa ku ndaw la wala punkal la moo ngi nekk fi ku gën a punkal moo ngi fi nekkoon démb ku leen gën a punkal moo ngi fi nekkoon barke démb ku gën a punkal ñi fi nekkaatoon barkaati démb ak ñi juddoo ci réew mii ak isa ku gën a ponkal da ngeen koy bañ a wax non da ngeen koy bañ a wax ndeysaan ndeysaan da ngeen koy ragal a wax ndeysaan da ngeen ragal a wax ne Isa yow yaa gën a ponkal ñi juddoo Sénégal bu fekkee Isa moo leen gën a màgg moo leen ëpp daraja moo leen gën moom la yàlla poñe ne ko a anta ndax yow mii qulta linnaas yow yaa wax nit ñi a anta la ko wax istifham la hamza bi hamzatul istifham la ndax yow mii yow Isa yow yaa wax nit ñi nañ la jàpp yaag sa yaay ñi def leen yàlla ñu bàyyi ma man yàlla Isa Isa dafa rëppeel ay bëtu ëmam ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ne ko subhanak sell ñeel na la yow borom asamaan ak suuf maa yakunu li an aqula maa laysa li bi haq wa lahu min mawqif muxzin li aada illah gis nga bar taxawaay bii dafa gàcceel képp kuy bokkaale képp ku jël sa kilifa rombale ko yàlla waxuma la nga rombale ko Seydina Muhammad rombale ko rombale ko ba yaakaar ne kilifa gi du juum lu mu wax noonu la la mooy lan ban kilifa moo dul juum lu mu wax noonu la ban kilifa lu mu wax noonu la ban ban ban ban alxuraan lañ wàccante ci moom ni moom du juum ah ban yonent moo ko taskiya fan la ko yàlla waxee lii muy wax nit ñi nañ ko def ah ban sariya lañ ko jox kan moo ko yónni su yàlla poñee yonent yi gis ngeen ni yàlla poñee Isa noonu la poñee woon Nuux noonu la yàlla poñee bépp yonent noonu la yàlla di poñee bépp nit hatta yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla bis na ko yaa yohan nabi li ma tuharrimu ma ahallallah lu tax ngay araamal lu yàlla daganal aaya boobu bu fekkoon na yonent su ko yàlla attaqué mu bañ nit ñi gis ko kon aaya boobu da koy effacé du ko dugal ci alxuraan xool li ko yàlla wax yaa ayyuhan nabi ay yow sama yonent lima lu tax loolu do interpellation ah lu tax tuharrimu ngay araamal ma ahallallahu laka li yàlla daganal ci yow ah atabtagi mardata azwajik da ngay ut lu neex sa jabar yi allahu akbar da ngay ut lu neex say soxna da ngay ut lu neex sa waa kër da ngay ut lu neex jigéen ñi yonent bi laay wax de waxuma keneen kon keneen waxi noppi gars yi nan leen yeewu fii ku fi jaamu yàlla suba ñu duma la duma sa kilifa yàlla dina la duma la sa kilifa bu ci bëggee jàpp yàlla caw ko yar bi mu ne nii di xool yàlla ma la ko ñëwal ah caw ko caw ko moom mii la loolu lay wax de dafa am benn waay gouverneur la woon ministre ministre doomam di course ak benn arab arab bi daal di koy raw Égypte doomu ministre muy course ak benn waay waa ja raw ko jël coupe bi mu yoot waa ji ba egg ci waa ji rek jël mbol dem rek ne ko waa ji dërr ci digg bopp bi ba waa ji mbax na mi naaw dali fële waa ji dali fële mu ne mu xool ko ne ko lu tax nga may raw doomu baal doola bu bon bi waa ji daal di jóg jël mbax neem ak boppam bu toj néew yi ay mbokkam lëngu ko waa ji dem këram ñibbi toog ba dal ba fiix jël jël jël warwaayam utali Makka utali Médine fekk Omar ibnul Xataab boobu moom mooy amirul muminin mu ñëw ak bopp bu ñu bànd ñëw toog ne ko Omar mu ne waaw ne yow la fi yàlla teg ci kanamu jaam yi mu ne waaw mu ne gouverneur yeeg ñëpp yaa leen fi teg mu ne waaw mu ne man de am naa ak doomu Omar ibnul As am naa ak moom problème Omar na luy problème yi mu ne dañoo teg benn mbir ñu ne nañu course ku ko raw jël ko yàlla def ma raw daal di koy jël mu def ma nii gis nga gis nga nu mu def sama bopp Omar mu ne lu mu la dóor mu ne mbolde mu ne loo ko def mu ne damaa ko raw mu ne bu mu la dóoree pare lu mu wax mu ne ma doomu baa doola bu bon bi lu tax nga may raw man may doomu ministre man ne ko dégg naa la bismillah gars yi ñu ne ma mu ne jël leen bagage am yi te fat ko ngeen dogal ko ci gan yi ba ma régler problème am Omar daal di bind papaam lettre ne ko invité naa la aj papa ji ah aj amirul muminin moo ma woo aj mu ne booy ñëw naa leen sa doom sa doom diw baa ji gën a kontaan maak sama doom amirul muminin moo ñu woo dañoo war a aj am ñaar ñu ñëw Omar ne pat waxu leen lu xew ñu aj baat bi jeex ba ñu waaje ñibbi nag Omar ne kaay leen toog ci saal bi Omar génne waa ji mu ne doom ji xam nga kii mu ne kii kii xaw ma ko de xëy ne ko ah xamuma xoolal mbol ne ba mbol mu ne waaw waaw yàlla dóoroon mbol bi mu ne waaw man la mu ne man la xam nga ma léegi waaw amaa ne lu mu la def ba ma dóor ko mbol de moo ma raw ah bon mu ne ana mbol de bi ne ah indiw ma ko de waa ji Omar ne jox leen ma mbolde yooyu ci biir ñu seet mbolde bu mu tollool ñu indi cinq mbolde ñu ne waa ji tànnal bu mu la dóoroon fii bu ci gën a mu daal di jël benn moom mu ne ñëwal taxaw mu taxaw moom mu ne ñamal ko ni mu la ñamale woon waa ji jël mbolde bi ne ko waa ji drrr ba mu xala nga ci suuf mu ne ko ñamalal papa ji benn mu ne papa ji dërr ma yegg suuf mu ne ko ba léegi bu sa doom di dóoraate di nga ci wax gis ngeen loolu mooy maandu te est ce que loolu am na fi tey est ce que am ngeen ko loolu tey seen diine ji seen dëkk bi kañ ngeen di am loolu lu dul bu ngeen amee lislaam rek waaw du ay référendum de mu leen di indil jàmm de du ay keneen dem keneen ñëw de déedéet feek teguñu li yàlla wax fii nii lii lii rek moo ñu koy indil waaye leneen jeng rek jeng rek jeng jeng jeng jeng mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nettali nañu loolu kon ci mbirum Isa pour ñu xam ne njiit yi ngeen di gis moo xam njiiti àddina la moo xam njiiti alaxira wallahi képp ku ci jàdd ëllëg yàlla dina la poñe ak ku mu mën a doon ndax yàlla jàpp na ñu gën a màgg ci société bi mooy yonent yi poñe leen ne leen yee ak yàlla poñe ay yonent nag keneen waxi noppi waaw boo ñëwee fekk sa papa ñu poñe ko yëkkati ko ci kaw wala ba lànk tànk yi laal lu suuf ah yow doom ci boo amee xel xam ne kii poñe sa pap bu paree dina la poñe sunu borom subhanahu wa taala wax nañu lii pour nu xelu ñu defaraat sunu pas-pas defar sunuy jikko xam ne alxuraan bi dafa ñëw pour defar gaa ñu njëkk ñi waaye pour defar nu la defaroon gaa ñu njëkk ñi moo ñuy defar waaye mbokk yi saar bi am na ngëneel jëlee nañ ci abdullah ibnu amr ibnu aas radiallahu an qalat unzilat ala rasulillahi sal allahu sallam suratu lmaida wa huwa raakib ala rahilatihi falam tastati an taxmalahu fa nazala anha omar abdullah ibnu omar ibnu amr nee na yenente alayhi salatu wasalaam keroog ba saar bi di wàcc ci kawam mi ngi woon ci kaw waruwaayam ba dafa waroon waaye màggaayu saar bi dafa jàpp yonent bi diis ba yonent bi lim waroon àttanatu ko yonent bi wàcc kon li ngeen de ñu ne law anzalna haza alquran ala jabalin la raaytahu xaasi'an mutasaddi'an xasiyatillah allahi yonent bi alquran di wàcc kawam mu nekk ci kaw waruwaay bi waruwaay bi àttanul yonent ba yonent dafa wàcc ci kaw suuf ndax waruwaay bi àttanul yonent bi ndax alxuraan bi mooy wàcc saar bi di suratul maida moo doon wàcc ci moom kon mbokk yi lii benn introduction la woon boo xam ne pour ñu wax leen saar bi ay mbir yi ci nekk ak ngëneel yi bu soobee yàlla ci kattanam sunu borom subhanahu wa taala bu nu dimbalee samedi incha allah lañ koy commencé asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu